jërëjëf bokk yi nga xam ne ñoo ngi ñuy topp fii ci Hisnul Abrar ci Thiel ci liggéey bi nga xam ne moom la Cheikh Mahamadul Basir mu Cheikh Abdoul Khadir woote mu di ab gor boo xamante ne bii njabootu Serigne Touba gi mën nañu wax ne ñëpp teg nañ fi seen tànk euh, muy dëkk boo xam ne nag euh, ku fi ñëw da nga xam ne digganteem ak Touba doon na ay kilomètres yu xaw a bari. fii itam doon na foo xam ne àll bu sori waaye lépp rek dundalaat ak toppaat jéego yu mag ña mooy ni ko sëriñ bi daan defee gor ay àll yóbbu fa ak njaboot di leen toqi ci lislaam ak leen toqi ci diine loolu nag kenn ci moom ñëw na fi kenn koo xamante ni bii yaakaar naa ne bu ñu tuddee aw turam buñ ne fekk na sëriñ Cheikh Mouhamadul Basiri ca Isnul Abrar ci Thiel duñu wax lu tax mu dem fa waaye du ñëw wax na guléet mu di Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacke moom Cheikh Mouhamadou Lamine Baara moom Serigne Touba Khadim sol mi nga xam ne moo waxoon ci kàddoom ne Cheikh Mahamadoul Bassir Serigne tubaa moom moo ko joxoñ tey jii nag mu ñëw fekk si Cheikh Mahamadoul Bassir ànd ak njaboot gi yëpp fii ci liggéey bi nga xam ne woote na ko dañuy taataan rek ay kàddu yoo xam dana ko yëkkati mu mën a nekk ab soññi jëm ci taalibe yi waaye nag jëm ci képp koo xam ne liggéeyal Serigne Touba ñor na la di bëggee itam liggéeyub Cheikh Mahamadoul Bassir bismillahi mina sheytaan irajim la hawla wala xawata illa billah alil azim ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci sanga binde fi seydina muhammad jaajëfal cheikh muhammadul fadal euh, luy suñu yitte ak suñu pas-pas nag ci sëñ fàllu la tàmbalee ci sëñ fàllu la yam sëñ basiru nag dañoo teg foo xam ne euh, fu yéeme la ci suñu diggante moo taxee nu nit yitteem di suñu yitte ndax euh, yàgg nañu te lépp rafet kon nag lépp loo xamante ni bi yittee ma bàyyi yitte ñëw won ko ne daal maa ngi yow bokk yitte euh, naw nañ ko nag bi fi ñëwee ndax fii ku fi ñëw ak euh, fee na mu wuteeg fii mu ñëw ba ci digg àll bi Euh, fas yéene fee liggéeyal sëriñ bi loolu moom ñu ngi ko ci gën a encouragé di bu ci gën a ñaanal yàlla gën ko cee jàppale ndax ndonool mag ñi mooy lii rek toj ab àll tarbiya ay doomu adama ngir yàlla ñu jóge fi nag am ngërëmul sëriñ bi kon defee lu mel nii kuy taalibe wala ngay mbokk war nga ko cee naw war nga ko cee ñaanal yàlla saxal ko ci ba dara bañ ko cee gàllankoor